bon teewul xam nga am na moom moo waxoon ne bu dossier tollee foofu moom dina ci dugal loxo dañ mu am ñu am deux poids deux mesures maintenant concernant Ousmane Sonko ci cas bu mel nii cas privé la ñaari nit la concerné munoo ci layil munuma ko layil man parce que ne waxoon naa la sànq rëy xel lay doon bëri pexe lay doon mm-hmm. mais bu ma ko layilee moom moom nan lay def Adji sama digg yàlla na lay def Adji Sarr mm-hmm, mm-hmm. la xew parce que xamoo suite beauté ñoom ñaar ak suñu borom képp ko xam mm-hmm. maintenant intime condition la ñuy demee gis nañ lu fi xewoon xewati fi xewati fi kenn ku nekk am na position mais man li ma li may def ci politique su ma ci mënul wax dëgg dama koy bàyyi parce que politique joxuma lekk joxuma naan soluma ci ay sagar <laughs> vraiment li may def dama koy def te yàlla te yàlla tax parce que xam naa mbir na ma ne aja nit ma invité tey dinaa taseeg sama borom mu laaj ma la mën doxal kon nag dossier bu mel ni mhm. man su ma ci yee yàbbi mooy na justice doxal yoonam laa ci mën a wax pour ñaari mbir justice am intérêt ñu wóolu ko mhm. wóolu justice nag mooy taxawal kenn bi gën a dëgër ci réew mais Ousmane Sonko dafa am intérêt wuy justice parce que moom moom mooy yootu réew mi d'accord te bëgg na ëllëg ñi koy ñi koy ñi ñi muy koy jox réew mi mhm. xam na kat seetal nañ deram loolu laa mën a wax ci ci dossier bi parce que man dama ci nekk position bu ma ci taxawee des wax dëgg ay la yëwan wax dëgg yàlla bu nekkoon sax ay ay waxi politique politicienne la waaw mais loo xam ne ni kenn ku ne ci ñun bu ëllëg yi dinañ la taxaw nga layil ko wax fi safaan wax dëgg yàlla bu jéng sa bopp la d'accord Mm-hmm. nga ngeen baal ma nag man dafa am lu am c'est le loolu laay doxee ci ci politique. absolument la mu ciy assumé wu du ma kenn du ma kenn du jox te man dafa nawet. li nga xam ne sama intime commission laa ciy wax mën a avancé. Mm-hmm. terewul nag su waaye defee safaan dinaa wax def na safaan. soo waxee dëgg naa wax na